salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu dalal fi Mamadou Lamine Cissokho mhm. ak Prince léegi moom day présenté ñaari casquette yooyu yëpp ñu xam moom mooy kenn ba bàyyi léegi <laughs> alors salaamaaleykum salaamaaleykum Aïda. nuyu naa la bu baax maa ngi nuyu internet yëpp d'accord di nuyu euh, waa parcelle fi ma jógee mhm. di nuyu waa Kër Massar fi ma dëkk actuellement d'accord di di nuyu waa Sénégal yëpp. effectivement ni nga ko waxee sama tur dëgg c'est Mamadou Lamine soxo d'accord donc Mamadou Lamine Sissoko c'est une personne euh, qui a toujours vécu au Sénégal qui est né et qui a grandi ici aux Parcelles comme je l'ai dit tout à l'heure et j'ai fait mes classes ici au Sénégal jusqu'à ce que yàlla def euh, ma jàng ba pare jeexal am samay diplôme aussi di liggéey Sénégal voilà donc je mène une vie très très très simple par contre Prince peut-être que ñu bëri suñu may xam ci lañ may xamee ah, voilà donc c'est l'acteur d'accord à Marodi qui est dans le projet Impact et voilà c'est ça alors ci presse bi laay taxaw ñu waxtaan après ma dem si Maodo Lam damay kii rek damay changer des fois nag bu ma ñëwee dinaa la wax si kan laay waxtaana mhm, mhm. alors presse ñu gis ko ci impact déjà mën nga ñu wax un peu avant impact mhm. est-ce que amoon nga série yoo doon bokkoon wala man ñu bëri dañu naan kii xàmmee nañ ko fenn xàmmee nañ ko fenn donc nga expliquer ñu un peu alors effectivement euh, man nag dama am ressemblance ak benn acteur d' acteur mu ngi tudd Martin Martin lañ koy wax. Martin Mbaye. Mhm. d' accord moom moo joué ci Karma moo nekk euh, Abu. dans Karma donc ressemblance boobu bien avant sax Karma di am. on était au parcelle ñoo bokkoon salle. Mhm. donc nit day ñëw cokkaas ma tooñ ma. ne ma booy fis looy kii ma ne ko mais on se mu ne ma noo dama la jaawaatle donc loolu la donc du euh, Euh, c'est partie de ça disons ressemblance boobu tax na tey ba j'ai eu à sama pour répondre en même temps ci sa question ressemblance boobu tax na euh, ba ma joué woon dans la fin de saison une Karma d'accord d' accord donc disons que sama entrée ci Mbaro di noonu la. ci Karma nga duggee Mbaro ci Karma fin de saison bi noonu. donc c' est là-bas où j'ai fait sama premier casting et c' est là-bas où j'ai intégré Marodi. Mhm. Euh, fin Karma bi ban ban kii nga ci. maa ngi génn ci euh, épisode je pense 30 ak 31. Euh, su ma juumul donc là c'était ci fin de saison bi parce que je je suis le frère de Abou et Abou devait <laughs> voilà devait se marier donc il y avait obligatoirement son frère qui devait apparaître donc mooy sama dugg ci baloo ji mhm. principe impact nan nga def ba intégrer déjà série bi alors par ricochet c'est ça donc euh, ñu def am projet impact bi donc il y avait le casting qui devait se faire donc on m'a appelé pour le casting pour ce rôle là je l'ai fait et après ça a réussi. Mm-hmm. mais dañ la woo casting mbaroo di sa intégration dañ la woo nga jëm casting comme ñeneen ñi. Mm-hmm. wala boog dañ la wax non kii moom. non non non non non en fait y a pas de c'est ça en fait d'où l'amalgame j'aime bien la question. en fait on peut pas incarner un rôle tey jii nii sans pour autant que nga def casting. Mm-hmm. donc on dañuy def casting xool ndax profil bi ça colle avec le rôle. et après ci lañ lay jël donc moi à Marodi j'ai pas fait qu'un seul casting. d'accord j'ai fait plusieurs castings. est-ce que avant Mbarodi. Euh, balaa série bi autant pour moi. balaa série bi en fait. à Mbarodi j'ai fait plusieurs castings. ok donc ce que mës nga dem casting feneen. non non non non. ah mosoo dem casting ñu daax man mosuma mosuma dem casting ci beneen kii. mais mosoo dem ci beneen maison kii moom la xaar. non macha allah. waaye kanam nga chance de. allah ñëw ñu ne la ah loolu nu moom foor na de ñu jël rek jox la rôle boobu déjà mhm. bañ la waxee rôle boobu ngay joué. dan mhm. moo njëkk ñëw sa xel. automatiquement que d'abord c'était un rôle et ça se limite à ça. Mm. d'accord c'était quelque chose à incarner mais xaaroo woon nga ne non il faut ma changer solin bi il faut ma commencer ay costume non non incarner lu mhm. man euh, on peut c'est ça l'acteur au fait d'accord on peut te donner un rôle d'accord et que tu puisses incarner ce rôle-là à travers les écrans que loolu mën a génn maanaam li ci producteur bi wala scénariste yi liñ ci soxla que mu mën a génn sans pour autant que sa dund demee noonu c'est ça et acteur au fait donc il faut savoir incarner le personnage mm-hmm. et là ce sont des entraînements des jeux d'acteurs à faire ba nga xamante ni ki lay seetaan même su la xamul li nga xamante ni moom la scénariste bi bind wala moom la réalisateur bi bëgg loolu ngay génne maintenant en dehors de ça dans ta vie tu es une personne man par exemple euh, sama euh, life c'est vrai que ci série bi je en costard tout bien sapé mais c'est pas tout le temps que laay sol costume même su may liggéey mhm. donc mën naa décontracté sol suma chemise damay sol t-shirt jean. Euh, <laughs> blague. Euh, ah mais naa sa Instagram de ah nañ dem nañ dem. nu mu tuddati <laughs> l'autre jour l'autre jour l'autre jour dama dugg ci benn fast food ndaw cinéma looy ñàngal. ma ko ñàngalu mu ne ma da defe ne xàmmewuñu la mm-hmm. ma ne ko si xam naa ni peut-être xàmme mu ne mais ci série bi nga gën a kii quoi ni ngay soloo foofu après je me suis ñoom idée boobu tout temps suñu lay gis xëy na loolu la xaar pour gis alors que là c'est l'acteur mm-hmm. kon est-ce que rôle boobu porté wu la un peu préjudice mm-hmm. boo waree romb nekk benn Mamadou Bora génn ci mbedd bi genre est-ce gars yi du ñu jàpp ne doomu président mooy romb war nga dem fenn war a am dara ñu ne la non walla taxe la gën a cher. je je <laughs> calcule pas mhm. je calcule pas ça en parce que soo ko calculer rek tu rentres dans un autre domaine tu te compliques la vie et moi ma vie est aussi simple que ça je suis un acteur en dehors des écrans je suis Mamadou Lamine et je je me comporte comme tel. d'accord donc du coup loolu yëpp du nekk sa bopp te yow mii soo ma gisee sax di nga xam ni.

Mm-hmm. rôle bi bañ la ko joxee noonu est-ce que. en fait c'est yaakaaroon na boos ngay toog toog fee sa papa kii fii sa papa yooyu. c'est mm-hmm. vrai en fait c'est quelque chose que j'incarne bokk na ci li ma ci gën a neex. c'est de ne pas toujours même bu fekkee du doomu président mais da ngay dégg ñu naan kii doomu diw la wala sëtu diw la de ne pas avancer avec ça pour un jeune responsable et ça c'est foofu la jeunes yi waree conscient en fait. Mm. quoi que soit sa waajur am. wala ak lu mu mënti doon tey jii ta vie c'est toi yow yaa ko war a defar ton avenir na dépend que de toi parce que tey jii nii nit day am xaalis ruiné poste président c'est juste président du ruiné na dégg ma président du ruiné tu sais yàlla waxul kenn dara parce que tey jii nii alal bi nga ciy am bu fekkee teg nga lépp ci yoon mënoo ci jund toute ta vie sans pour autant nga liggéey à mois que mu am ay mooy loolu yaa ma gën a xam mais une personne normalement dafa war a demal boppam donc loolu moo ma neex ci rôle bi may incarné c'est que euh, dans la série comme vous l'avez amal maa ko defal sa papa gisaguñ ko sax ñu moom <laughs> ngi koy wax ci benn épisode que lépp lu am maa ko ñàkkal sama bopp donc c'est une philosophie boo xamante ni su ma sañoon jeunes yi moom la ñuy demee en fait mhm. c'est de ne pas dépendre que samay parents lii lañ doon mais d'aller de l'avant d'accord alors Prince nag moom prince nag dafa xaw a doy waat ci série bi parce que man sama mag bi passé dañoo seetaan nee na maa ngi lay nuyu mu naan noo kii war woon bàyyi jigéen sax di ko indi lekk genre yooyu. Mhm. nga am benn role tamit boo boo boo incarné foofu noonu. Mhm. genre ñu bëri daf leen dal seen bureau. Mhm. am benn secrétaire bu leen di toppatoo ak yooyu noonu seen jabar fiir loolu est-ce que ci ay retour yoo xam ne jot nga ko ci. waaw retour yu négatif par rapport à. ñi nga xamante ni doxale naa ak euh, ki nga xamante ni mooy sama secrétaire mooy sama collaboratrice ci série bi mais euh, aussi c'est une histoire que je suis en train de traiter dans la série qui me plaît aussi e sooy seet c'est ce sont des mots de la société yu yu bëri li daw ci série bi yëpp ce sont des mots de la société yoo xamante ni sénégalais moom la ñuy dund tey ji nii notamment man su ñu xoolee ci description personnage yi sax bi projet bi di génn c'était comment Prince va trouver l'équilibre entre son travail et sa vie de famille mm-hmm. parce que quoi Prince est un self-made man moo defal boppam moo amal boppam donc business am da koy bëgg sauvegarder donc il est tout le temps au travail là c'est un dilemme te c'est loo xamante ni la ça revient couramment ci suñu loo xamante ni mooy suñu dund actuellement voilà maintenant nag Euh, li nga xamante ni nit ñi ñi ngi ma ciy ñi mooy liberté peut-être bi ma may sama secrétaire wala li ñu may sekk ak moom mais nañu xam ni Prince dans la série c'est juste benn collaboratrice bu may liggéeyal on s'entend bien. ah muy defar lekk la ñu mais mais non yow mën Prince loolu c'était dans le cadre du travail. Mm. damaa guddee. génn gu ma bureau ma waroon commander elle a amené à manger tout simplement mi ngi mel ni sa xarit rek. je l'ai pris ainsi. Mm. maintenant nag ñu jàpp ne peut-être li may def ay avance mais dañu xamul ne man avance yooyu mu may def man gisuma ko. d'accord euh, ci beneen aspect bi tamit mooy prince amul jot pour pour pour sa femme sa femme day plaindre un peu ne du toog day liggéey liggéey est-ce que yooyu tamit joto si ay retour wala ku dund ku lu mel noonu woo la ne la man nii laay dund ak sama jabar. alors euh, je pense que y aura une solution. bi nga xamante ni sûrement dina génn par rapport à ça. c'est-à-dire d'avoir le temps pour sa famille parce que quoi que soit nit ki du liggéey man loolu laa gëm waxuma li ma nekk di tourner mais li ma gëm mm-hmm. Mm-hmm. quoi que soit sa liggéey bari il faut toujours avoir le temps d'être avec sa famille d'être proche de enfants te tey jii nii sax ce sont des répercussions yuy am dans l'éducation de nos enfants c'est dû à ça yaay bu amul jot papa bu amul jot moom ak xale bi kañ la ñuy daje ngoon la ñuy daje ci kër gi. ngoon gi papa ji mën na sonn dem tëddi yaay ji nelaw te ñu tu n'as pas trop de valeur à inculquer à ton enfant par manque de temps. Mm-hmm. du coup c'est quelque chose boo xamante ni il faudrait qu'on puisse trouver l'équilibre tey jii nii dans la dans la vie d'être en famille donc c'est ce qu'il y a à éviter et ce que Prince incarne ci côté boobu noonu disons que man personnellement en dehors de Prince Mamadou Lamine je ne je n'approuve pas. il faudrait toujours avoir le temps pour ses pour ses enfants. et puis rassurer tamit seen seen soxna yi. parce que séquence boobu. Mhm. nee naa dafa am ñu bëri dañ cee kaas nag de dañ cee yëngal nga kër yi de. Mm-hmm. waaw parce que mm-hmm. góor ñu bëri dañ naa nool yi dara amu ci mm-hmm. seen jabar yi noonu nool yi amul amul droit def ko loolu tamit assurer sa jabar aussi c'est important waaw c'est ça il faudrait yi nga xamante ni moom la ñu nekkal parce que gis benn jigéen buy tourner autour de ton mari c'est pas évident comprendre mais aussi man ak Adja perception yi bokkul li mu gisee Maada gisewu ma noonu Maada loolu moo indi problème bi te comme maa ngi ko koy wax ci benn épisode xamal ki nga nekkal parfois nag il faut pas heurter les parce que nit ki euh, Aïda tey jii bu fekkoon man dama la xam xam yow yaay kan. Mm-hmm. à un moment donné ñaar wala ñetti affaire rek je remets ça en question yow personnellement sax di nga ci am comportement bu ma dul neex parce que da ngay frustré wu da nga naan mais kii xanaa xamuma. donc à un moment donné lien de confiance boobu noonu il faudrait que nit ki di ko mettre en avant pour sauver son couple c'est très mm-hmm. important. alors rôle bi ba tey nekk koo xam ne ku calme la ci ci ci ci ci kii bi série bi mm-hmm. ak Mike calme ànd ak koo xam ne amul amul réputation bu baax. bu baax mhm. na noonu loolu est-ce que ci àdduna da ngay gis koo xam ne dafa calme noppi ànd ak koo xam ne moo gën a dëng ci koñ bi mm. mais loolu loolu euh, lan la exactement rôle bi tamit nan nga ko demee ba réussir ko noonu noonu. alors euh, je pense que gis na nit ki ko koo nekkal maa ak sama xarit la c'est mon ami et c'est mon collaborateur en même temps e man comme ni ma la ko waxee je tiens à mon business. donc tey jii nii on a on est nous sommes des contraires man ak Mike mais je pense que nit il faudrait sa contraire pour mu lay réguler. Mmh. un message aussi qu'il faudrait faire passer nit ki sa contraire rek à un moment donné moo lay mën a réguler moo lay mën a andiwaat d'accord c'est vrai que man ak Mike moo tax du ñu ànd maanaam tey jii Mike. dans la vie euh, c'est une personne dans la série boo xamante ni du ñu ànd di def ay kii parce que bokku ñu ay délire mais ay xarit lañ mais wax dëgg su jotee man maa koy wax dëgg boobu pour lan la pour delloo si ko la. Mm-hmm. d'accord mis à part série bi est-ce que ban lien ngeen am yéen ñaar. Euh, sama mentor la c'est un mentor pour moi c'est un gars qui a de l'expérience dans le dans le cinéma. Mm-hmm. et j'en profite beaucoup c'est un ami derrière. Mm-hmm. c'est un gars qui te donne très bon conseils. il est très gentil. Et franchement, ça, vraiment, Mike, je le dis devant les écrans, je te remercie pour ça. Il est tellement humble et il joue très bien. Sous pareil, dans mon coin, c'est comme ça. Je profite de son expérience, en fait. Et franchement, il est, il est très généreux. Mm -hmm. Et il partage. Alors, nous avons une série, le <laughs> Mais dans le cadre, voilà, nous avons prince. Prince, nous n'est ni dit, les Sénégalais, aussi. Mm. C'est grâce à Elage, c'est grâce à Marem, mhm. c'est grâce mooy ki ñuy wax Jules César. Jules César d' accord c' est un ami pour moi. Mhm. d' accord c' est grâce à toute l' équipe de Marodi. Ah, dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw après ñu ngi dugg si mhm. loolu. tey su ma ko doon wax mu conseiller prince. Mhm. Mamadou Lamine conseiller prince lan la koy wax. mooy li nga xamante ni souligné naa ko. il faudrait avoir le temps pour sa famille. c' est très important. parce que man hormis série bi je vois des problèmes de couple. des même des des de la société yoo xamante ni c'est dû à ça. tey jii manque d'éducation xale yi si on en prend si on prend cet exemple la c'est un peu dû à ça c'est un peu dû quoi yaay bu amul jot papa bu amul jot. ngoon la ñuy tase ci kër gi kooku est-ce que mën naa yar doomam comme il faut certes mën na ko mais dina am lu manqué xale yi mënuñu nekk tout le temps di des ak ñi nga xamante ni ñooy des ci kër yi ñooy bale kër beeg yooyu te ki lay liggéeyal sax à un moment donné mi ngi occupé wu ci ay tâches ménagères am. Mm-hmm. donc euh, su ma amee li nga xamante ni moom laay conseil prince c'est d'avoir du temps pour sa famille d'accord d'essayer aussi dana ne pas montrer carrément que il est en froid avec son père ba tax na dafa refoulé papa ji ci life am waajur kenn ko nu mu tuddati kenn ko kenn ko traité noonu. Mm-hmm. beneen volet bi mooy euh, <laughs> mu gën a mën a yuuxu jabar ji parce que dafa yem <laughs> waaw foofu nag moom du yuuxu moom moom xuloo bi sax dafa neex moom du coup c'est la nature de Mamadou Lamine man je suis pas pas trop vite comme ça man je franchement damay primer euh, dialogue dafa important donc pour man lép waxtaan mën na koo régler. Mhm. mais je suis un peu plus chaud que Prince comme ni ma ko waxee. d' accord dinañ ñëw ci loolu. Euh, euh. lan la ñu mën a gis ci Prince en même temps gis ko si moom ñu am ay points communs Mamadou mooy calme bi muy njëkk dégagé. Hmm. aspect approche euh, nu mu tuddati dialogue bi muy njëkk am nga xam ni dañ koy waxtaanee nga xam ni kàddu yu warul mën a bañ a jug nañ ko toog waxtaanee ko ko kon même en dehors série bi noonu nga mel. waaw man je je je je dialogue ko fi. Mhm. man damay waxtaan nan la prince mel te Mamadou Lamine melu ko. mooy euh, kii bi euh, prince day maslaa ba ba mu sës. Mhm. prince day dialogue ba mu sës su gisul lu mu xam mu dem. Mhm. mais à un moment donné Mamadou Lamine day xullo. day xullo ba mu sax ah xaw na pànk tuuti daal sama yaay njaago la. baab <laughs> alors euh, su ma la doon laaj tey série bi joué nga ko succès bi. Mhm. nga romb ci mbedd xam nga Sénégal nag moom Marodi c'est suivi. série bi mu mhm. génnee macha allah day day cartonné euh, nga génn ñu naan prince a ngi nii prince mhm. ngay dundee lool. alors public bi succès entre guillemets bu ndaw. waaye hmm. parce que succès. léegi dootoo kii de. voilà donc euh, ça va quoi. dootoo dem ci ay restaurants yu ndaw yi ay fast food. non non dugg fast food. Hmm. Fataay téeméer. Pendambe ah yooyu tamit loolu. mënu ma ko bàyyi naa dootoo ko léegi. Ah, eh, may liggéey nii may wàcc ren sama life. ah suma life parce que tey jii maa ngi de <laughs> sama oto panne ma wàcc war a bi waa léegi nooy mel ni ko mais may buux. je kon daal yëgoo succès bi nii. soo ko yëgee da ngay sono sa bopp. Hmm. bàyyi ba pare soo ko yëgee da ngay soof nit ñi une comme je di une personne doit rester humble te tey jii nii <laughs> c'est quelque chose boo xamante ni mën na dal ku nekk mën nga jékki-jékki ki ngay waxal di ko jéem a jaay affaire romb la fa gën laa am tur parce que léegi série yi c'est quoi on fait des castings de masse. y a un gars qui joue bien on le prend mu jouer c'est aussi simple que ça mu feeñ ci télé feeñ télé xëy nag moo doy waar sortir sur les médias nit ñi. ah mais nag acteurs yi nag da ngeen am réputation boo xam ne boo len xasee feeñ télé ñi ñaan doo leen wuyu Instagram seen ñi sax damay gis yooyu pourquoi tu réponds pas au message doo leen wuyu téléphone. man je seen seen je je prends xarit sax yu bees. je prends en témoin ñi ma xam ñëpp. d'abord hmm. ci ñi may message Instagram je réponds. naa am kenn ku génn ne prince message naa ko musuma tontu ça fait un mois deux mois amul d'accord tey jii euh, yow yaay nekk ci bubu boobu que dama am léegi tur xaaral ma sélectionner ñi may waxal. ou bien je fais la star. pour essayer d'avoir plus de buzz je fais la star je me fais rare mais man philosophie yooyu dundu ma je suis prince je sors je joue je fais ce que je dois faire je reviens je suis Mamadou Lamine Sissoko dans la vie courante et je suis amul amul leneen luy changé amul chichi yooyu yëpp affaire de kii la d' accord mis a part mis à part euh, série yi lan ngay def lan ngay liggéey. Euh, je travaille dans une banque. d' accord je suis agent ah, de banque nga miin costume yi. <laughs> mais se est banque bi ñoom xam nañ ko parfois chemise kese laa leen di may lu ci bëri. <laughs> <laughs> d' accord mhm. donc je suis agent de banque je travaille dans une banque de la place. Mhm. voilà et xëy dem wàcc dem tournage wala dem def say activité dem ñibbi. Mhm. mais série am na xaalis léegi. Ah, banque yi moom dañuy am xaalis mais série bi xanaa dina. waaw comme ni ma koy waxee souvent aw ma élément comparatif parce que man maa ngi soog a nekk ci projet mu joué <laughs> d'accord mais xeebuma liñ may fay nit ki da ngay wax rek sa akulaay taala mhm. te fi ma nekk baax nañ man sérieusement fay nañ ma lu wees sama njort te gisuma ni nday nay nay ñoo fet mhm. maintenant nag ki nga xamante ni il est professionnel dans le domaine mën na estimer que man sama valeur fii la yegg te du ma ko wàcc mu xeep ko mhm. comprendre nga fi may waxee parce que loolu mooy gagne-pain am man au-delà de de la série au-delà des tournages maa ngi ak sama liggéey léegi su si yokkoo sama bonus les la su si yokkoo su si waaw ak su yokkoo sama bonus d'accord et je fais ma vie tranquille mais qui est ku nekk professionnel ci domaine bi amaana soo ko joxee loolu wala même sax mu ëpp ko mu xeeb ko parce que xëy na ay charge am ci la dépendre mais man c'est pas mon cas c'est pourquoi je dis que je m'y retrouve te xeebuma ko euh, ak acteurs yi mi ngi joué bi bon xam ne bon am nga facilité de jeu ak moom koo xam ne par exemple dina la dina la dimbali tuuti comme yaa ngi doogay débuté de franchement de très bons acteurs qui m'entourent de profiter l'autre jour li nga xamante ni moo a neex ci épisode bi ñu génn mooy le fait de tourner ci benn épisode ñu wone ko euh, avec euh, Joséphine Zambo mu feeñ <laughs> franchement c'est c'était un honneur ma génn ci parce que dama ko yàgg seetaan en tant que xale mm-hmm. mu may neex tey àdduna di dox ba ma bokk ak moom série ça m'a fait très plaisir donc euh, euh relation yi ma am ak acteurs yëpp ay relation jàmm lañu et on se complète comme mais ñu ngi lay dimbali. ñu may dimbali dama leen di laaj. ñoom ñëpp xam nañ ni gis nga nit ki bu fekkee da nga yegg ci dara da ngay nekk ci dara même bu fekkee xam nga ni am nga telle capacité bu bu ci yem parce que acteur c'est par niveau avoir le talent mais après il faut monter crescendo il faut nga yéeg ba atteindre benn niveau bi hmm. niveau boobu laa bëgg yéeg moo tax ku ci nekk nga jiitu ma ci seetuma nga mag ma wala ma mag la su ma paree je te demande soo ma nee lii ak lii ak nga war a def je le fais moo tax mhm. ci laa la wax Mike ci laa lay wax Momo mu Hadj le réalisateur par assan Jules César tout le monde. Mhm. xeebuma ci idée wu kenn. Jules moom dafa tàng man man kooku moom il faut ma dalal ko mu wax ma ñaari produit mais. non kooku dafa ay dafa doy waar. <laughs> kooku dafa ay. <laughs> dafa doy waar alors séquence moo moo la gën a neex na nga joué ko après nga pare journée boobu yëpp da nga koo reetaan. <laughs> Hmm. parce que séquence bi neex na la. séquence bi ma gën a neex mooy euh, bi may wax ak euh, Maada naan ko fi ma jógee dafa sori d'accord mhm. euh, sama yaay laa nekkal d'accord li may liggéey yëpp moom la ak sama njaboot ak yooyu donte nag amaguma njaboot mhm. donc amaguma jabar amaguma doom mais man su ma ñefee ci àdduna si pour ma mère mhm. boobu daf la touché woon waaw ça m'a am na première fois bi j'ai dama aj samay samay rongoñ en fait parce ah, que je pense pas que je devais ci séquence boobu noonu quoi d'accord donc euh, fait le maximum mais lorsque je parle de ma mère c'est ça en fait parce qu'on a eu des moments très très difficiles yu ma passé moom hmm. donc bi may bi ma ko bi bi ñu bindee yaay ma war ko ci lim ci partie boobu alors que parti boobu paragraphe bi dafa daf ci am aspect bu nekk dëgg donc ça m'a touché hmm. te wax naa ko moom sax bi ko bind. moom mi ko bind. ba nga demee sa yaay lu mu la wax nag. Euh, sama yaay waxtaan ñu ci séquence boobu. Hmm. mais moom xam na en fait. ok c' est quelque chose que j'ai vécu paragraphe boobu li ma ci wax c' est quelque chose que j'ai j'ai vécu. te ñu ci may tuuti. bon c' ma vie sama yaay moo ma yar. Mm-hmm. moo daj ci man ay coono moo ma dugal école. elle s'est sacrifiée pour moi parce que nit ki. du ma ni yaay du def loolu ci doom mais sacrifier une vie pour une autre laisser tout tomber pour l'éducation de ton enfant c'est ce que ma mère a fait mm-hmm. donc elle a tout misé sur moi man je ne devais je ne je n'avais même pas le droit de ne pas être sur les rails ou bien je n'avais même pas le droit de ne pas avoir tey jii nii fi ma toll di defal suma yaay. Mm. et xel boobu noonu dama ko teel a am macha allah. et voilà donc màggaale tey sa yaay bu lay seetaan nag en tant que jour rôle bi nga xam ne kenn décrié wu ko kenn waxu la non ni nga def nii baaxul mm-hmm. <laughs> bokkoo ci ñooñu ah. donc donc bu ñëw booy ñëw moom ban réaction la ci am déjà da koy bett danaa non xaw ma mën nga lii wala sama yaay mm. daf may kii wala presse la lay wooye léegi sama yaay Mike mooy acteur ah Mike mooy acteur man <laughs> Mike dafa doy waar ça <laughs> mooy acteur am. Mhm. ak Jessica. Mhm. d'accord mais euh, moom elle est toujours elle a toujours les critiques envers moi. su baaxee du ma ko wax trop peut-être day bañ. voilà et, et elle veut que je sois meilleur elle veut que tey jii lu may def. mu mun ci évoluer aay ci. donc mhm. du coup elle me elle me fii bien na mais fa lay yem mais parti bi nga xamante ni baaxul day ñëw ne la fii. sa tuñ yi dee ko diw. <laughs> dafa weexoon yooyu yëpp dina critiquer. sa dee ko diw. Mhm. fii pourquoi j'avais l'air que da nga xaw a crispé. fii pourquoi ton visage comme ça mais loolu yëpp su ko gisee c'est parce que daf ma xam. Mhm. est que comprendre nga mais loolu mën nit ñi mën nañ ko bañ a gis. am na ci ay séquences yi may wax. après je me di mais comment la mën a xam ni amoon naa ressenti bii. comprendre nga. Mhm. Ah, loolu bokkul ak dara quoi <laughs> alors séquence bi la bi loo xam ne nag marqué na la mais daf la neexu la. boo xam ne joué nga ko boo xam ne bon mun nga wax ne mënoon naa def plus wala nga ne non bii mënoon buñ ma ko joxaatoon dinaa ko joué wat euh, sama euh, première séquence ak Mike gaan boobu neexul joué la. <laughs> ba dafa métti. très euh, en fait il a un niveau de jeu. mais waaw quoi c'était la première fois ma tourné nii automatiquement sur commande rongañ bi jaar nii mu ni woo kii du muy liggéey nii <laughs> comprendre nga. il est il est dans le jeu c'est c'est un gars qui vrai acteur en fait. d'accord donc du coup il m'a un peu mis la pression c'est comme si joueur buy soog a démarrer. nga dugg ci terrain beeg Messi. ñu jox la balle nga war a teggi passe xam nga da nga xaw a stressé c'était donc du bi ma ko tourné c'était bien mais réalisateur bi da nga ko ni bii est-ce que duñ ko defaat. mais boobu moo doon sama première séquence. Hmm. même dans ma carrière moo doon sama première séquence bi nga xamante ni c'était un un rôle confirmé bu ñu ma jox ma war ko jouer et je voulais faire bien donc du coup li ma daan def yëpp dama ko doon xeeb. Mhm. d'accord euh, fan ngay séntu sa bopp nag ci milieu cinéma bi parce que commencé na ouverture ñu am yeneen nationalité di ñëw fi di jouer yenn mm-hmm. acteur comme Mike. Mm-hmm. daag nañ seetaan ay série wam mm-hmm. ah mm, ngi séntu sa bopp tey série boo xam ne série panafricaine la mën naa wax loolu. Euh, fan ngi séntu sa bopp exactement foo xam ne nag euh, yow moom Momadou bëgg nga fa àgg. bon c'est d'atteindre euh, un niveau bi nga xamante ni parce que euh, si on suñu xoolee bu baax l'industrie du cinéma commence à à changer. Mm devient beaucoup plus professionnel. ça devient beaucoup plus joli au niveau même des images d'accord il y une grande évolution d'accord donc euh, fi may séntu sama bopp c'est juste là où képp kuy jouer am passion du jeu fa nga bëgg yàgg c'est de tourner dans les plus gros projets yi am dans le monde du cinéma que ce soit au Sénégal ou à l'extérieur mais aussi avec le niveau avec le niveau tey jii nii on m'aurait proposé benn projet bu mag international bu kii xeebuma sama bopp ci sama jeu. Mhm. mais j'aurais préféré je vais préférer balaa ma koy def donc c'est ça en fait quand on doit servir aux gens on doit servir de la qualité. Mhm. d'accord donc ku nekk aussi nga jéem a atteindre benn niveau bi donc actuellement fi may séntu sama bopp c'est comme je l'ai dit au plus haut niveau d'accord et d'avoir ce jeu-là. et de de continuer à faire l'apprentissage du cinéma ba keroog ma ci. d'accord kuy say référence koo xam ne jeu am neex na la trop ci cinéma bi. Euh, y Michael B. Jordan. Mhm. et je pense que pour tout acteur sooy seet dafay fait tu peux faire le sondage. ki nga xamante ni ça revient tout le temps c'est Denzel Washington. donc au niveau langue bi ça dépend mais euh, l'acting c'est parfois euh, nous ce qu'on dégage sur le visage. Mm. les émotions qu'on transmet à travers le visage et je pense que Denzel Washington c'est le meilleur. Sénégal au Sénégal sama acteur. sama comédien préféré Sanex la. Sanex. d'accord et c'est un grand acteur aussi. Mhm. parce que li mu la bëgg transmettre lay transmettre. quand il veut que tu le prennes au sérieux tu vois tu le prends au sérieux su bëggee tooñ aussi tu da nga koy jëlee noonu. Mhm. mais bu fekkee dafa yor rôle boo xamante ni dafa war a catégorique ferme munoo ci ree da ngay je pense qu'il joue bien. Mhm. est-ce que yaa ngi seetaan yeneen séries Euh, ma xool waaw naa ko seetaan euh, papa pas tellement maîtresse d'un homme marié maa ngi koy seetaan mhm. Karma sama série préférée la ci ñuy tourné yu ñu mës a tourné yëpp euh, série Even Prodi aussi Idole mhm. aussi dama koy xool voilà Mœurs mais saison bi nii focus suma ci torop mhm. parce que manque de temps mais dinaa seetaan lépp mais Mœurs waa Mœurs Mœurs na ma lan nga gisee seen kii bi nag série yi maintenant bëri ku nekk mi ngi produire bëgg dugg ci cinéma bi. c'est ça bon c'est bien. parce jeunes yi capable def tout tamit pour def rek feeñ. waaw bëri na ci. producteur du ñu fay. waaw ah, ñu ngi lay fay waaw <laughs> ah, ñu ngi lay fay. tu sais ah, ah fay moom maa ngi ci sant yàlla bu baax. maintenant waaw. dara tardé wul. non ça hmm. dara tardé nga xam nga tey jii même fi ngay liggéeye même structure bi ngay liggéeyee lu mu lu mu professionnel professionnel parfois y a des <clears throat> y a de ces choses mënoo ko jël en charge ay erreur de deux jours trois jours yooyu tu pardonnes facilement. loolu garaawul. non yow sax yow banquier nga nga xaalis bu pare. Euh, nga ni. <laughs> am nga xaalis bu pare di yow Marodi su ko neexee sama joueur loolu. <laughs> banquier ah, bi day pan banquier bi essence de. <laughs> ah kon baax <laughs> kon baax na. <laughs> léegi que comme industrie du cinéma bi ni mu koy gisee c'est bien c'est bien qu'ils produisent parce que y a beaucoup de jeunes talents te tey jii y a des talents même qui ne sont pas au niveau des séries c'est ce qui est dommage ñoo xamante ni ce sont des professionnels dans le milieu. Mhm. mais doo leen gis au niveau des séries mais je pense que. chacun aura aura sa chance tey jii nii ba mën a tourner et je pense que le fait qu'ils produisent ça, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est d'appuyer sur la qualité des productions mmh. et la qualité des thèmes qui sont soulevés dans les séries. et que aussi internautes yi ak sénégalais yi am benn genre ouverture d'esprit par rapport à certaines choses parce que y a beaucoup de comment dirais-je beaucoup de retours yoo xamante ni ce sont des retours négatifs alors qu'à un moment donné ça contribue à l'évolution du domaine mhm. il faudrait juste être tolérant en boo xam ne nag doo bañ la ko joxoon danga naan non wala rôle yëpp ngay joué. buñ la kese. mais à part ça. Mhm. quand on se dit acteur vraiment et qu'on veut évoluer dans la joxee rër le rôle ko war a mën a incarner. d'accord voilà maintenant bu fekkee amoo capacité incarner ko nag voilà tu prends pas. Mhm. soo ko amee voilà rôle borom ñaari tur yi daal. amee ah, bu ñu la joxoon ku soxor koo xam ne day ruube théâtre bi. je sais être méchant. chaque personne peut sortir tey jii tu es acteur tu te prépares à tout te c'est c'est quelque chose boo xamante ni tu te limites pas au talent et à la passion tu t'entraînes d'accord dernière question bi nag ñu bëri bëgguñu ko bëgguñu ñu leen laaj loolu mais dinaa la ko laaj mhm. yaa fi sol say costume yaa fi sol ay affaire xale yu jigéen ñi mu demee tu es marié ou pas je suis pas marié pas <laughs> encore waaw ah, kay xale yu jigéen ñi war nañ laa sonal nag yaa fi sol say ba nga nekkee acteur ba tey prétendante yi war nañoo bari. waxal rek. prétendante yi am nañu. waaw mais xale yi dinañ la kii de des fois dina message. du wër say numéro du du du du du sax ça dépend même pas de du jeu. xale yu yi xale yu ku nekk solo sa morom mais c'est-à-dire c'est quelque chose que je prends comme ça c'est. mais mais série bi ba mu commencé ba tey nga xam am notoriété nag nit ñi xam commencé na xàmmee xale yi dinañ message Instagram. <laughs> waaw mais ñi message yëpp ça va ça va bien nice je te félicite pour le rôle ça va cool je veux te connaître y' a pas de souci. tu as mon Insta tu ma texte noonu. ah kenn courtiser ay rendez la <laughs> kenn courtiser wu ma ci de. <laughs> Hmm, da ngay laakata rendez vous yi zappé naa ko loolu loolu est ce que sonal la tamit déjà parce que nit ñi tamit dañoo bëgg ko siw waaw bon sonalu ma. parce que amul benn li may sonal mooy li am impact négatif dans ma hmm. vie. Hmm. je pense que ça n'a pas d'impact négatif dans ma vie et voilà, ça n'a pas changé ma vie aussi. Et puis va. Mm-hmm. je, vis bien. Un cœur à Non, j'ai pas dit un cœur à Ah, j'ai dit que <laughs> ah, je suis pas marié. célibataire nga mais. célibataire laa. mais d' accord non sax jabar bi yàggatul sax. Mm, incha allah non non mënul yàgg. Mm. non loolu warul sax yàgg. Ah, warul yàgg xam ne warul yàgg waaw mi ngi noonu banquier rek. Hmm? plus acteur prince doomu président ah, warul yàgg <laughs> warul yàgg. alors tey nga rakkatu ñu benn anecdote nag ñu jeexalee ko boo xam ne nag mbedd bi dem nga rek tasante ak benn fan wala benn kii. boo hmm. xam ne genre marqué na la en ba nga commencé jouer lu ma marqué. wala ñu woo la téléphone. Hmm. alors. wala ñu critiqué la boo xam ne tamit euh, jàpp nga ko. waaw am na lu ma tikkee. Mhm. Euh, je vais raconter juste deux choses am na benn message moom bu ma mës a lire non benn commentaire bu ma mës lire mu xaw ma tikkee ça m'a je me suis remis en question et franchement ça m'a encouragé à aller de l'avant et à faire mieux. Mhm. Euh, donc te je pense que nit aussi sooy démarrer tu peux être là. Mhm. au fil du temps il faudrait être là il faudrait qu'on sente l'évolution une nag nit ki mënu ko mënoo ko fustiger parce qu'il fait des efforts mais bi ma tourné sama premier deuxième je pense troisième am na ko ci mës a bind mais Prince quelle est son utilité dans la série Prince daal mënoon na fi ñàkk alors j'ai voulu montrer à cette personne là que man non mënuma ñàkk ci série bi ça c'est de un de impact bu mu amee ba mu bind ko li ma njëkk tikkee moom dañ mës sa daje en 2015 xaw ma 2016 boobu Pod et mi ngi daw. Mm. donc rôle am neexoon ma ma wàcc fi may liggéey di jéggi gis ko ma nuyu ko ne ko mais grand kañ laay tourné mu ne ma noo bientôt ma ne ko benn affaire naa la ko xamal te dama ko ko doon wax noonu rek yàlla rek mooy def ma ne ko jour dinañ bokk série ma ak yow incha allah. Mm. ma reetaan dem ça s'est réalisé. malaaka amin bee leen dégg. dégg nga malaaka amin bi moo dégg. waa mhm. après noonu noonu la ñu mën voilà c'est quelque chose qui m'a marqué bu ñu nee donc moo ko impact moom la l'idée originale et tout ñu on voit Momo loolu moo ñëw sama xel automatiquement en fait. d'accord donc il faudrait juste positiver pour euh, waxtaan bi neexoon na ah ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñi la peut-être yaa ngi doon lim sànq ñi la jàppale ñoo xam ne bon. jàppale nañ la bu baax donc euh, euh, loolu. ki ciy njëkk sama yaay lay doon c'est une femme qui m'a vraiment soutenu te li nga xamante ni moo am solo ci waajur mooy nga yar sa doom xam ko mu am lu nekk ci boppam nga jàppale ko. Hmm. ma mère m'a toujours soutenu tere na ma lu bari mais lu ma bëgg mu baax daf ma ciy jàppale bi may nekk di jouer daf ma ni su la neexee c'est ta passion mën nga ko def mais su la dul yàqal sa liggéey demal donc mu ñaanal ma c'est ça. donc euh, la première personne à remercier c'est catégoriquement elle. ma nuru ku jege sa yaay de. trop. Mhm. su ma ko waxee dinañ dinañ ne waaw waa ji li muy wax nii man parfois damay toog sama néeg toog toog toog wéet dem ci sama yaay bokkatu ci ginnaaw doom laa. Mhm. donc c'est normal lien boobu noonu mënoo ko dindi donc sama yaay lay doon sama beneen yaay mooy suñu taaw astu su ma duggee école tey moom la mhm. Edith samay neveu ce sont des personnes qui sont proches de moi te tey jii nii nit ki looy def da ciy seet ñi nga nekkal tey jii nii amaana ma am xel sax def loo xamante nii dama naan ah waaye su ma xalaatee samay waa kër rek mm-hmm. damay dellu si mes neveux Henri Freddy Loulette d'accord donc tout le monde toutes ces personnes m'ont soutenu j'ai des amis ñoo xamante ni jege na ma dañ may soutenir aussi ñoo ñëpp maa ngi leen di remercier ay de jiko énormément de personnes qui sont derrière Mm-hmm. d'accord maa ngi leen di. waa Marodi wax Marodi El Hadj Marème Dial et Mass Mass c'est une personne très bien très mm-hmm. gentille El Hadj c'est mon frère. voilà ñooñu maa ngi leen di remercier ñi nekk équipe bi yëpp nag samay xarit lañ fa la ñuy nekk di tooñante ay ñoom bul damay ñëw gaare sama oto ñu peeral sama pneu. Hmm? ma crevé mais c'est c'est une très belle ambiance boo mm-hmm. xamante ni aussi dafa am. voilà donc ce sont des personnes à remercier Nims maa ngi koy remercier Nims. voilà franchement c'est une personne mm-hmm. te jii nii yaakaar naa euh, lu bëri su amee moom ko waral dëgg la et je le remercie pour ça d'accord merci beaucoup Prince très bien fils du président di remercier waa Parcelles fi ma jóg 26 Kër Massar doom président nag Almadi lay dem dëkkee changel kan man waaw non bàyyi ma Kër Massar hmm. euh, ndox bi di taa may ku Kër hmm, hmm, tous tasar dëkkuñu foofu kon waa tous tasar nekkuñu Kër Massar <laughs> <laughs> wala léegi département ngeen sax léegi département ngeen. département lañ léegi waa gis nga ñi ngi évoluer évoluer <laughs> waaw tous tasar nekkuñu foofu <laughs> nekkuñu Kër Masar. tur boobu daf may dee tal. Hmm. waaw mais non dëkk ñu Kër Masar est-ce que yëguñ Pikine Guédiawaye. Pikine Guédiawaye waaw. Ah. pour man ay groupe la. waaw mais ñoom nañ ci ne rek. Hmm. franchement <laughs> ñu ngi may reetal loo. <laughs> ma bàyyi la. <laughs> Ah, ok donc euh, je te a aussi de ta mm, disponibilité de ta gentillesse et toute l'équipe de Sénégal aussi. les caméramans et tout. Mm -hmm. bon, franchement vous êtes. Quand très disponible kon ci yeneen épisode ak yeneen kii. ñu xool presse bi muy joué. nu muy nu muy joué voilà. jeex na incha allah. merci Allez, beaucoup merci beaucoup kontaan